السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك وجاد الهم بالتي هي أحسن نيوغي لين دي نيو أكفيب فنين منا نكتي كوسوف نيوغي نيانا سيك باب جامعة دينان كنيانا دينان وحنا إن شاء الله تاي دانان في دلال ولا نيوغ في دلال ليغي ليغي شيخ فدل منيو دفل ني أي ليرال تي لغا خبنا موي تخواي نيوغا خبنا نيوم لني وح نيوغي تي منهجو سلف موي أهل السنة موي نيوغا خبنا نيوغا تكتين تانك فيونا تبتغن تين تانك نيوغي دي وح salafiste yi wala boog sunnit yi ahlu sunna ñooñu nag moom ñoom la Fadel bëgg ñëw leeral lan moo seen taxawaay ci waa ahlul bidaa bu ñu faatoo lan moo ci seen taxawaay ahlul bidaa waa bidaa bu ñu ko waxee mooy ñi nga xam ne dañoo yo ber yonent bi dafa def aw yoonam ñi def yoon seen pegg mooy ñi màggal ñiy gàmm ci tënk daal ñooñu ñooy ahlu tasawuf gën na yaatu loolu nag dañ ci boole ñi nga xam ne waa tasawuf képp koo xam ne da ngay dem di leen jàppale ci mbir yooyu da ngay bokk ci mbir yooyu ñooñu ñuy wax waa tasawuf ñooñu ñuy wax waa bidaa ñu fi jógee lan mooy taxawaayu waa sunna moom la Cheikh Fadel bëgg a ñëw leeral incha allah aywa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Fadel ñu ngi lay wax ne bu fekkee yaa ngi ci ligne mën nga dugg si asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi nuyu mbokk yëpp di ziyaar ngi yàlla subhaanahu wa taala mbooleen defal tawfiq xam naa balaa ñëw ci tomb bi rek dañuy indi benn muqaddima lay laytaay waaju ci fàttali ne jullit bi faw mu xam mbir yi nga xam ne julliteem moom la làmbool ak julliteem li nga xam ne moom la euh, moom la wundu mooy nit ki su fekkee ne dafa ne jullit la moo xam da caa juddu wala dafa daal di tuub na xam ne la mu wundu mooy ne dafa jibbalu dafa jël léppam jox ko yàlla sunu borom nit ki soo ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah daa am ay mbir yoo xam ne daf koo làmbool jébbalu googu nga jébbalu yàlla sunu borom la mu làmbool mooy nga daal di jébbalu gi daal nekk jébbalu gu mat sëkk udxulu fi silmi kaffa jébbal gu mat sekk la nga xam moom la àndal mooy lépp loo xam ne dalay gaar ci sa àdduna lay jiitu ca yow mooy nga xam lan la ca yàlla sunu borom daal di digle ban taxawaay la nga ca war a am taxawaay boobu mu la digal nga war ko ca am nga jiital ko ci lépp jiital ko ci say yëg-yëg jiital ko ci say bëgg-bëgg jiital ko ci say sentiment jiital ko ci yëg-yëg-yëg bëgg-bëgg ñi nga xam ne ñoom nga ñoom nga ah, ñoo la jege moo xam sag njaboot wala moo xam ña nga xam ne ñooy say <clears throat> say say mbokk wala say dëkkandoo wala ñoo bokkal gox wala ñoo bokkal réew waaye da ngay jël yàlla sunu boroom ak la nga xam ne moom la bëgg ca yow daal di koy jiital ci kaw lépp loolooy tax lay lu la ñëw dikkal la wala bokk lépp lu la gaar balaa nga caa seet kenn lu mu bëgg ak na nga war a doxale mooy dangay xool la ca jiitu yàlla sunu boroom nan la waxee ma doxale noonu mu nekk ndox mu sedd boo xam ne day fay beneen bëgg-bëgg boo xam ne mën na la gaar nga jiital ko ci mu nekk la nga xam ne lumière bi nga xam ne mooy niit sam xel bu muuri ko ba mu rëy la lëndëmu sentiment yeeg euh, wala boog bëgg-bëgg ya nga xam ne yenn saa dina gaar sa sam xol ba yenn saa yi mën a wala lëndëmal wala boog daat lay nekk entrave entre yow ak yoon bi nga soobu mooy yoonu jébbalu yàlla sunu borom bi nga xam dañ caa war a nekk ba keroog ñuy faatu wala tamutunna illa wa antum muslimun lii la jullit bi mooy njubbiwaayam julliwaayam jullit mooy faatu fekk na ba muy faatu mu ngi jébbalu exclusivement allah subhanahu wa taala fekk ne ba muy faatu dafa jébbal bu mat sëkk ci yàlla sunu sunu borom moom beneen mbir mooy dangaa wax ne ba nga jébbaloo yàlla sunu boroom danga seede ne kamu yónni ci yow mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon la yàlla bëgg la nga xam ne moom la bañ mënoo koo xam lu danga koo jaarale ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sunnaam yonent boobu daam ñu ko yàlla booleel mu jàngal leen yar leen ba pare daal di garanti ñooñu ni ñoom na mu garanti yonent bi sallallahu alayhi seenu diggin mooy diggin ba nga xam ne mooy wér kon soo demee nga daal di delluwaat lépp lu la gaar nga delloo ko ci yàlla te yàlla boobu la mu bëgg tam bañ da koy jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam koo ko jaare muy li nga xam ne mooy saxaaba yi di mag ñu di mag ñu baax ngi seenu déggin bu wér su fekkee ne nit ki bëgg naa texe faw addunam bi gépp nii la koy nii la koy doxale mooy alquran ak sunna ak dégginu mag ñu baax ñi ndax ñooñ la yàlla subhanahu wa taala gërëm in amanu misli ma amantum bihi faqad ihtadaw ñooñ la yàlla subhaanahu wa taala wax ne ku gëm la ñu gëm ku jaar fa jaar ku doxalee mbir yi ku niit la gaar ca ñoom la leen daan gaar yow yaay ki nga xam yaa nekk ci jub te ka nekk ci jub mooy ki nga xam ne moom mooy moom mooy texe kon jullit bi faw lépp lu koy gaar rawat na ci jamono yi nga xam ne daa am luy féete kaw ca moom moo xam mbëgteel la mbëgg ay wala boog euh, sentiment boo xam ne contentement la wala bokk mu doon sentiment boo xam ne tristess la moo xam sentiment wu mer la ci jamono yooyu la gën a war a fexe fexe ba seytaane du ko du ko détourné du ko wàcce lu toll ni euh, lu toll ni atum du ko wàccee ci engagement bi mu jëloon ci boromam mooy dafa jébbal ci boromam ndax foofu la ko seytaane gën a dominé ba dootu dégg la ko yàlla ku di wax walla ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di digal kon moo tax saay bu dara gaaree faw rek ñuy bàyyi xel ne dañoo nekk ñoo xam ne dañoo jébbalu dañoo jébbalu ci yàlla suñu borom moom moo ñu wax fu ñu war a fu ñu war a jaar leneen nag waruñoo dicté du sentiment du bëgginu ab société du seen doxalin du aada du gisunu baay du gisunu maam du gisunu yaay jullit bi nii la war a doxee su fekkee ne bëgg naa nekk koo xam ne dafa defa texe moo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ñu xibaaree ne mbooloo yu bari dinañu texe di ba mu des benn mbooloo mooy juróom-ñaar fukki mbooloo ñett yooyu wala boog ñaar yooyu texe di te benn moo cay texe muy nekk juróom-ñaar fukk ak ñett comme juróom-ñaar fukk ñetti benn moo cay texe juróom-ñaar fukk ak ñaar yi daal di texe di la nga xam ne ci la ko teg mooy ci lii ñu nga xam ne ñoo jébbalu jébbalu googu noonu mooy delloo ko ci eh, daal di topp yoon ñi nga xam ne ñoo jébbalu ñoo dellu woon ci yàlla suñu borom wattabi sabila man anaba ilay moo tax mu ne man kaana ala misli ma ana alayhi al yawm wa ashaabi ñi nekk ci man li ma nekk tey ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoo delloo ci yàlla suñu borom ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoo tuuboon dellu ci yàlla suñu borom ñooñu ñi nga xam ne yàlla soo dafa bëgg loo daf la def seenam xol da caa bëgg loo ngëm yàlla bañ loo leen li nga xam ne mooy al fusuq wal isyaan ñooñ ñi nga xam ne yàlla da leen tànn ba pare daal di leen di gërëm daal ànd gërëm ñi nga xam ne ñoo topp ci seen yoon ci ak ca rafetal wala yonent bi sallallahu alayhi wa ne ñooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci man li ma nekk tey man ak samay saxaabaam ñoom ñu nekkoon mooy lépp leen gaar dañ ciy jiital xam lan la ca yàlla subhaanahu wa taala daal di digal xam la ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ñu daal di cay ñu daal cay nekk donte seen day nekk loo xam ne eh, seeni i bëgg-bëgg wala day nekk xam ne eh, dafay wuteeg la nga xam ne mooy lii eh, sentiment yi bëgg donte day wuuteeg la nga xam ne moom la njëleen wër daa di bëgg ñoom la cay jiiti mooy yàlla sunu borom da yàlla boo leen ko diggal yaa ayyuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli duñ jiitu yàlla ak bu yonentaam ci dara jullit bi nag nii la war a doxale lii moo nekkoon euh, laytaay bi bëgg nañ ko jiital mooy nit ki bàyyi ci xel ne li nga xam ne moom musta soof te musa soof li nga xam ne jamono ju nekk moom lañ war a jiital kenn waru koo sànni teg ko fële mooy lépp lu ñëw ci situation bu munti doon nga ne lan la fay lan la ma yàlla ku yénantam daal di ku nekk ca loolu nekk ci njub ku nekk ca loolu ku wàcc loolu wàcc li nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy njub doom benn jamono ci jamono yoo xam ne ci dund nit ki la li yàlla wax yonentaam dafay dafay ñëw après wala li yàlla ak du doon le moment de la de wala yàlla ko yonentaam wax kenn waru koo jëfee jamono jooju wala kenn waru koo fàttali kenn jamono jooju amut jamono ju munta doon lu rut ne yàlla ko bi yenentaam la mu wax noonu la ñu war a noonu la war a doxe noonu la ñu war a fàttali nit ñi moo tax saxaabatul kiram ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam faatoo ñu nekk ci tristesse bu rëy te tristesse mënatul a weesu ñàkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ëpp xam-xam ca ñoom gën ca ñoom ba mu ñëwee la mu njëkk a def mooy delloo leen mbir mi ca yàlla ko yonentam bàyyi sentiment yi tege ko fële daal di taxaw daal ne képp koo xam ne da nga doon jaamu Muhammad mii xamal ne Muhammad faatu na waaye képp koo xam ne da nga doon jaamu yàlla seen borom xam ne yàlla moom di mooy kii mooy mooy dundu tey ma du mës a du mës a faatu tegal leen ci nag ne leen xam leen ni mooy la yàlla subhanahu wa wax ne wa ma muhammadun aba ahadin min rijalikum ولكن رسول الله وخاتم النبيين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أبي عندي أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلا يضر الله شيئا mooy xam leen محمد موم di Muhammad moom nekkul ab yonent ludut comme ni nga xamee ne ay yonent yi nañ ko comme ni ko ay yeneen yonent jiitu ndax nag kooku su faatoo da ngeen di balam nekkoon daal di dellu ci la ngeen nekkoon yéen ku ko defit doo lor yàlla sunu borom dara foofu noonu lam leen delloo mooy fa ñu war a delloo mbir yi sentiment ñëw na tristesse ñëw na naqar ñëw na waaye li ëpp solo mooy delluwal mbir ma yàlla sunu borom te jullit bi nag ci bépp ci bépp moment lii la war a doxale bañ sentiment yi di ko euh, di ko dominer ba muy wàcc li nga xam ne mooy Euh, mooy yoon. su ñëwee ci tomb bi ñu bëgg waxtaanee xam naa suñ ko doon tëggaat dañuy wax ne mooy ban taxawaay la jullit bi war am ci mbokkum jullit boo xam ne dafa faatu su boobaa dañuy gis ne jullit bi faatu mënta génn ñaar ñi imaamu doon koo xam ne la mu fesu doon mooy teg tànkam ci alquran ak ak sunna ak top li nga xamne mom la yàlla subhanahu wa taala digle ci la war ci mom ak balamu mu la mu tere ci yeneen terme ci gàttal moy mu nek ko xamne ne la mu fësaloon mooy at taa waaye la mu fësaloon mooy wala bu li nga xamne moy moy yàlla sunu borom moy yàlla sunu borom di xat ñaari xat moy yàlla goo xam dafay dellu ci nit ke ay mbir yu muy def ni ko jaamu yàlla te ñëwut ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bidaa wala mu doon ay mooy yàlla xam da koy def mu aju la ko yàlla subhanahu wa mu ba ko mu tere mu koy mu koy def ci mbir yoo xam ne làmboowul ak li nga xam ne mooy bidaa su fekkee ne nit ka la mu fésal la ñu xam ca moom te mu fés ca moom mooy nekkoon kon dafa tegoon tànkam ci alquran ak sunna dafa tegoon tànkam ci topp yàlla ko yenentaam ci bépp buntu kooku la fekk ne daaw ko ci moom naka lañu ñu war a jëf wala nag la ñu war a doxalee ginnaaw bam ba mu faatu bokk na ci jiit la fekk ne moom mooy daal di koy ñaanal ndax kooku la nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala digle jëm ci ñun mooy ñu bëgg ko bëgg gu mat sëkk ndaxte li jullit bi daam lu ko tënk loo xam ne fu mu nekk daa war a ànd ak moom mu alxubbu fillah wal bughdu fillah mooy daa war a bëgg di bañ ngir yàlla loolu sax moom mooy cafkaay ngëmam loolu daa bokk ci fondement wu ngëmam mooy alwala walbara mooy alxubb fillah walbughd fillah kon ka gën a matle bëggam ka nga xam ne moo gën a ka muy gën a bëgg ca jullit ña mooy ka nga xam ne moo gën a feesal ak matalam ca ngëm mooy topp yàlla sunu boroom ci lépp bali nga xam ne mooy mooy yàlla sunu borom ci lépp ci li nga xam ne moom moo feeñ yàlla subhanahu wa taala nag yatawalla sarair jullit bi la muy atte nit ki mooy az-zahir mooy la nga xam ne moo fees na ci loolu la am lam capacité la ci atte kon la fekk ne bëgg googu noonu mu bëgg ko ci àdduna te mu nekk bëgg ko dëggu te bëgg googu aju ci rek ngir da koo bëgg ngir yàlla sunu borom. dafay ànd ak moom ba ba muy faatu te li nga xam ne mooy moom la bëgg ko làmbool la chekk ne mooy daal di koy ñaanal yàlla sunu borom ñaanal kook njéggal ci lu fees ak ci lu ci loo xam ne lu nëbbu la moo de yàlla sunu borom ba mu ñu wanee ñamu gërëm mooy saxaabatu kiraam ñi nga xam moom la wax ci njëlbeen ñoom la ñu war a jaar seen yoon te ay jël seenu dégg-dégg wala ne walladina jaau min baadihim yaquluuna rabbana agfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina xillan lilladina amanu yàlla sunu boroom dafa jël ñi nga xam ne ñoo ñëw ci ginnaaw mooy la warlu ca ñee ñi nga xam ne dañoo ñëw ci ginnaaw yi jullit ñëw googu ci ginnaaw gi mën na mu njëkk laa faatu wala nga ñëw ci ginnaaw ba nga xamee ne faatu na mooy danga nga war a koo bëgg moo tax muy ñaan bu ñu def suñu xol ak mañeel jëm ci ñoom mañeel googu noonu li nga xam ne mooy wone ne amu ca mooy ñaanal ngi leen di ñaanal mooy ñi nga xam ne dañoo jiitu ci gëm yàlla donc ñaan yàlla sunu boroom yàlla daat leen di daat leen di jéggal xam ne foofu noonu la muy feeñal mooy ne kon ñaan gi dafa am lu muy wone mooy alxubb fillah te ñooñu bëgg gëlle wala bëgg bëggu mat sëkkle bëggu mat sëkkle yi lay doon la chekk namit kenn du ci werante mooy kooku ku faatoo jàll ko ay ay mbokkam comme ni yenent bi salallahu alehi wasallam doon jaale ña nga xam ne ñoo faatu ci ay saxabaam seeni seeni mbokk comme ni nga xam ne nagul islam daal yi daal di digle ci fàttali leen ne yallah subhanahu wa taala lépp lum joxe moo ko moom lépp lum jëlit moo ko moo ko moom daal leen di mm, ñaax ñu daal di muñ daal di profito ci lii leen dal ngir wëcc ngërëmu yàlla sunu sunu borom ak mbir yi nga xam ne adduna ci lañu war a fee juddit lépp kenn du ko gën a yoo ñooñu mooy ci sang leen ci julle leen te julli googu doon fardu kifaaya te julli googu day dugg ci ñaan ki nga xam ne mooy ñaan kii yàlla sontal digal ñu ñaan leen ñaanal leen ko defal leen suul leen ca ña nga xam ne mooy bàmmeelu jullit yi ña gën ca jullit ña wala ña gën a yaakaar ñu gën a tedd ca jullit ña ñi nga xam ne ñoo ñoom lañ gën a wekk ca jullit ña ñu tànn ca ñooñu su fekkee ne tànnut ko ko jullee ñu daal di koy ñu daal di koy jullee kon ka nga xam ne moom dafa faatu ci ngën yàlla sunu boroom ngëm yàlla gu mat koo xam ne daa bokk ca la koy firndeel mooy teg ca loxo ci alquran ak sunna mooy nekk ab sunni woo xam ne doo jaamu yàlla sunu borom lu dut naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jàngale na da ngaa wax ashhadu anna muhammadan rasulullah te bokk ci muqtada shahada boobu mooy ne yow na ngay jaamoo yàlla sunu borom doo ko jëlee lu dut ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa bokk ci muqtada googu noonu da ngay topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la digal lam la tere nga bakk mooy daal di bàyyi li nga xam ne mooy maas yi nga xam ne feeñ na wala boog bàyyi wala boog la ñuy gis yow mooy ne da ngaa ba bakkaar yi nga xam ne dafay yenent bi wala boog mbir yi nga xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ko tere te yàlla subhanahu wa taala digal ko ko te lépp lu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam tere lu mu digle yàlla moo ko digle yàlla moo tere wa ma yantiqu anil hawa in kon su fekkee ni kii moom kon mbëggeel ga ñu amoon ak moom mooy mbëggeel ko mat sëkk di ko ànd ak moom di jàppalanteeg moom di dimbaleen teg moom alal birri wa taqwa sufaatoo tamit loolooy feeñ seedeel ko lu baax la nga xam ne moom lañu xam ci moom lañ xam ci moom ndax ñi nga xam ne ñooy umma yenent bi sallallahu alayhi wa ñoom ñooy seede yeneen na wala bokk ñooy seede yàlla ci kaw suuf wala yàlla doon saxaaba yi antum shuhadaa'u llaahi alal ard yéenay seede yàlla ci kaw ci kaw suuf moo tax ba nit daal di faatoo ñu wax ci moom lu baax mu ne wajabat am ko ñu wax ci moom lu baaxut mu ne wajabat mooy ne bañ ko laajee saxaabe lu ko waral lool mu ndax yéenay seede yàlla ci kaw suuf mooy ko leen seedeel lu baax mu moo tax nga xam ne dañoo gis ci moom ak yiw gis ci moom lu baax la nga xam ne moom la ñuy lislam di xeet leen nit ñi su faatoo jaf nañ faatoo mooy du ko seddeel lu baax lañu xam ca lañu xam ca moom di ko seedeel lu baax la nga xam ne moom lañu moom lañu xam ci moom kon noonu mooy mbir mi nga xam ne moom moo jiitu léegi seedeel ko lu baax lañu xam ci moom nag foofu ñu benn parenthèse mooy daf ci am solo mooy lu baax lañu xam ci moom mooy nekkut ne nit dafay faatu nga koy seedeel loo xam ne yaa nga gën a xam ne lii xamoo ko ci moom la ngay wax ci moom mooy la nga xam ca moom loo xamul nga daldi cay nga daldi cay noppi seedeel ko lu baax la nga xam ci moom la muy tënk mooy doo yokk ay nekkut ne dafa faatu rek nit nga yokk li nga xam ne mooy ay mbiram yu mbiram yu baax ku mel noonu mënoo noonu seedab yàlla ci kaw suuf ndax nit ki dafay la tax mu a doon mu taxawee taxawaay mooy nit koo xam dafa dëggu te daa bokk ci dëggu mooy la nga wax ci nit ki mu nekk loo xam ne lu dëggu la lu wér la baa nit ki faatu na rek lépp lu ñu wax ci lu baax rek dafay day nekk loo xam ne euh, lépp luñ xam lu baax dañ ko war a wax donte xamuñu ko ci ci moom kon ala kulli xaal su fekkee ne nii la jullit bii mel moom lii mooy taxawaay te lii mooy cosaan ci jullit boobu nii la jullit ñi war a doxaleek moom ginnaaw ba nga xamee ne ginnaaw ba nga faatu na te bañ di ko fàtte ba keroog ñoom nit ñuy ñuy faatu di ko di ko di ko ñaanal yàlla sunu Euh, sunu borom mu des beneen jullit bi nga xam ne ci li feeñoon ci moom mooy dafa nekkoon ci ak mooy yàlla sunu borom te mooy yàlla googu tuubu ci te da ko doon fésal jullit boobu laa sekk ne ci ñaari anam la mun a fësale mooy yàlla googu anam gi jiitu mooy mu doon jullit boo xam ne bakkaar yu mag yi dako doon def ale nit ñi di ko gis xamee ko ko moo xam doon naan sàngara moo xam da doon jaalookal yàlla na musal moo xam ab woykat la boo xam ne day dajale góor ak jigéen ñi dundam gépp mu daal ko cay mu daal di ko cay passé wala ci yeneen bàkkaar yi nga xam ne <coughs> nit ñi dinañ ko faral di fësal ci kaw ñu xamee ko loolu moom faatu ca <coughs> kooku ban taxawaay la ñu war ci moom daa fekk ne taxawaay bi dina wuteeg kële ndax kële bëgg gañ koy bëgg bëgg gu matale sëkk la te feeñal lu war a tax ñu daal di koy mere ngir yàlla suñu borom waaye kii nag dafa feeñal lu war a tax ñu daal koy am mbëggeel gu ñu war a ngir yàlla suñu borom waaye loo xam ne daa tax ñu mere ko ngir yàlla suñu borom alxubbu fillah wal bugdu fillah alxubb googu wal bugdu googu fillah nekkut nit day dee rek mu daal di effacé wu bugdu googu dafay continuer ba tey moo da ko la am ci xubbu fillah mooy ne ah sagam ci ngëm yàlla la faatu de te yàlla waxoon na ñaanal li nga xam ne ñoo faatu ci ngëm yàlla su doon kii kii bàkkaaram daf génnew ko ci lislaam génnew ko ci ngëm yàlla goo kon ko dañ koy ñaanal kon ñaan nga ba tey dañ koy ñaanal li nga mooy yërmaan yàlla su ànd ne moom daa faatu ci mbir yoo xam ne ma nga ca li nga xam ne mooy taxta machatillah mooy képp ko faatu ci bakkaar bakkaar lu mu mag mag te nekkut shirk nekkut bokkaale nekkutu kéefër kooku mi ngi nekk ci li nga xam ne mooy coobare yàlla suñu borom mën na koo jéggal ko mën na koo duma waaye dañuy xam ne su ko yàlla dumaa ci bakkaar yooyu doola du sax fa mooy safara dina dugg àjjana mooy fa muy mujj kon kooku lislaam du tëj buntu ñu daal koy ñaanal li nga xam ne mooy jéggalu yàlla suñu borom nag faaw ñu feeñal ba tey ci taxawaayam boobu mu amoon ne kii nii taxawaay bii mu amoon nii taxawaay la ba la fisoon daa am loo xam da caa naqarewoon yàlla sunu borom daa loo xam ne da caa dañ ko ci waroon ñun bañ ngir yàlla sunu borom dañ ko ci waroon mere ngir yàlla sunu borom su faatoo tamit day feeñ lu faatu rek nekkoonum njaalookat ñu ne moo gënoon ci nit ñi lu faatu rek nekkoonu sàcckat ñu ak a baaxoon lu rek nekkoon li nga xam ne mooy ab eh, woykat bu mag jaxase kër yu bari eh, eh, musique googu dugal ak njaaloo ci xolu nit ñu bari ñu ne moo fi gënoon déedéet kooku dañoo war a feeñal loo xam ne dafay tiit loo xupp ña nga xam ne ñoo mel ni ñoom ni moom su fekkee ni ki daa nekk ci mooy yàlla su faatoo wu mel ni moo fi gënoon ña nekkoon ni mooy yàlla ñoom lan mooy seen lan mooy lan moo leen di di tiital ñu yemale ka doon mooy yàlla ka doon jaamu yàlla suñu borom ndax yàlla dina jël ña def leen comme ña nga xam ne ñooy wala dina jël ña nga xam ne ñoo ragal yàlla def leen ña nga xam ne ñooy ñooy ay kàccoor alakum kayfa taxkumuun que yàlla subhaanahu wa taala du jël ñu mooykat yàlla bi jox ko même atte ki nga xam ne moo nekkoon ci ragal yàlla sunu borom kon kooku bokk na ca li tax li wane kii nii ab mooykatu yàlla la te lim nekkoon dañ ko bañoon bokk na ca dinañ ko jullee de ndax ab jullit la waaye ña koy jullee won ñoo doon ñoo xam ne autorité lañu wala ñoo door ñoo xam dañ leen a dañ leen a wekk dañuy jël kenn rek noon jullit mu daal koy jiite wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ ko indilaan nit yenn saa dañ ko indit mu ne ndax dafa am li nga xam ne moom mooy eh, bor su ne ko waaw mu ne sallu ala bañ koo muñ koo jullee mu daal di jël keneen mu daal di koy mu daal koy jullee ngir daal di ragalloo nit ñi ci li nga xam ne mooy tawassu ci li nga xam ne mooy lépp te noroo fay doon tomb boo xam ne lu jar a taxaw la waaye taxul mooñ taxaw jug tey ay gis ñu ragal yàlla lu ci mbir yu bare bare bare waaye su jëmee ci wàllu xaase mel ni daa am yeneen mbir yoo xam dañ ko xam te ni ñu xam ñu ko ragal yàlla gi mel dafay loolu du ca dugg ci domaine boobu ala kulli xaal kon kooku am na taxawaay bu ñuy am ca moom mooy taxawaay la boo xam ne nekkut taxawaay ba ñu am ci kële ndax kooku dañoo war a tuddam lu baax kese mais tudd lu bonam su fekkee ne tuddam lu bon dafay am njariñ pour jullit ñi tuddam lu bon day nekk loo xam ne lu dagal la ba naa naan lu waajib ko nekkut ne faatu na rek kenn warut a tuddam lu bonam yonent bi sallallahu alayhi wa am na benn eh, surgaam ci ab jotaay ceeb benn eh, xare bu ko taxawal di ko defaral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ci service yonent bi sallallahu alayhi di ko defaral li nga xam ne mooy monture am mën nañu wax li nga mooy balle perdue ne flèche bu jógee fële daal di koy jam mu daal di faatu wala mu daanu faatu ala kulli xaal dafa faatu ca jamono saas yooyu noonu nit ñi tàmbali di ko tagg lu baax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal leen di ne leen kii de la nga xamee ne moom la jël ca daaf dafa defoonu bàkkaar ba xam ne mooy daa sàcc dafa jël ci li nga xam ne mooy xanaa ami la nga xam ne moom la yéen yonent bi ak i soxaabaam daal di gañee ca boog mooy butin bi lañ jël ca ñi nga xam ne ñoom lañu xeexal daa lu mu ca jël daal di koy denc kenn séddaleegu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne moom loolu la jël di ko ko di ko ko xam ne moom di ko di ko lakkee xam ne mooy safara moom la ñu koy jëlee mooy kii dafa faatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maslaxa nekk ci mu tudd bàkkaaram mu tudd bakkaaram te faatu na kon mooy lii njëkk firndeet ne képp ko faatu kenn waratu wax dara ci mu bon loolu aada boo xam ne aada Sénégal aada bu bon la aadala boo xam ne dara gënu ko yées ci tasaare ak mbonte su fekkee ne nit ki dafay def mbonte di ko tasaar di ko tasaare mbonte googu muy tasaar dafay des su faatu waaye jëmmi faatu na moo tax ak mbonam kenn waratu koo tudd bal dañ ko war a tuddal lépp lu baax rek wala sa bal dañoo inventé lu baax looy war sa inventé lu baax su fekkee amu ko su fekkee ne yoon woowu mooy yoon bi nit ki di jaar amul yoon bu ko gën a bon ngir daal di xeex fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daa koku mbiram bu sak wat lu mu def boo xamne ne nit ñi xamuñu ko woon lu taw mu tudd ko ngir dañ ko tagg ci duñ ko ta tagge yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg leen tamit won tamit ci bakkar bobu na mu reey ci yeenam yalla sunu borom mu xamal leen ni jege ga mu jege woon yonent bi di sax diko diko dimbali lolu fagalu ko li nga xamne mom moy wala bok dàqalu mbugaluk yalla sunu borom ci bakkar bobu mu def kon foofu ñu jëlee fa di jiitu mooy aada bi ñekk sénégal mooy nga xam ne su iblis deewee sax mën nañoo taxaw di ko naan ko baax la woon ndeysaan waaye soo ko waxee ne iblis kii seytaane woon ñu ne la ay yow yow yow yow maanul kii dafa faatu loolu aada bu bon la du yàlla moo ko jàngale du yonent bi salallahu alehi wa sallam moo ko moo ko jàngale alla quran gi fees mu fees del yonente bi diñu yàlla diñu tuddal ñoo xam ne dañoo jiitu diñu won seen ngonte ndax nit ki mën a wax ne ñooñu ay yéefar lañu ñoon waaye dañ lay wax ne al ibra bi umul lafdi la bi xusuusi sabab waaye yenente bi sallallahu alayhi wasallam kii moom ñii moom ay jullit la yenente moom rombee ay nit dan ne fa innahuma yu'adhibaan wa ma yu'adhibaan min ñu ngi leen di mbugal la leen mbugal nekk lu rëy ñaari ñooñu laa ci kala jullit la ñu woon tax ñu leen doon mbugal mooy lan mooy li nga xam ne moom mooy ay bakkaar yu doon def yëreet sa daat koy tudde ñoom ñu faatu lañ ndax dajaa bëggoon jàngal ay saxaaba may ay mbir yonent bi sallam liy firnde loolu mooy saxaaba yi nit romb na fa asnaw alayhi xayra mu ne wajabat ñu daal di wax ci moom lu baax yonent bi ne leen ah, la ngeen wax ma ne ñu ne keneen jàll fa asnaw alayhi sharran min sahih Buxaari mu ne wajabat ñu daal di koy wax ci moom lu bon ne yéen da leen tere bu leen wax ci lu bon ko faatu déedéet ne leen ni ngeen ko waxee noonu lay amee kon la ciy dégg mooy su fekkee ne nit ki daa nekkoon ci monte nekk ci lu baaxut kon jëmmi ne faaw nga wax ci moom lu baax rek walla bokk ay ñaawteefam kenn wartu tudd loolu sentiment la waaye du sharia waaye nag tudd ay ñaawteefam daa fekk ne maslaxa daal di cay nekk mooy moo ci nit ñi ñaawteef googu mooy xam leen yii nii bu nekkoon nekkut lu nekkut lu baax su fekkee ne ñaawteef la gum nar a tasaaroo ginnaaw faatoom daal di tëj bunt ñu xam ne lii ñaawteef nit ñi bañ ko ca bañ ko ca bañ ko ca topp bañ a ëppal ci di ko tuddal ay mbiram yu baax man nit ñi mën a jàpp ni kii ku baax la woon bañ ko yëkkati wàcce ko na mu wàcce woon boppam ci àddunaam ndax moom moo mooy yàlla sunu boroom wala yi dañuy gis su ab caaxaan kat xam ne àdduna yu da koo da koo passé ci li nga xam ne mooy taaxuraan ak mband ak way jaxase góor jigéen faatoo ñu jël ay nit comme dañ kilifa dañuy toog di seet moom lu baax ko defal ay plateau spécial di wax ci moom lu loolu laa sekk ne musiba la musiba gën ko rëy du alquran du sunna yenent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam kon kooku mooy ki nga xam ne moom daa wàcc yoon te wàccam yoona moom ci maasiya la mooy dëkkut ci biddaa mooy kooku ak mooy yàlla la nekkoon dinañ ko suul nag fa ñuy suul jullit ñi dinañ ko sang dinañ ko jullee dinañ ko dinañ ko ñaanal ñaanal googu nag doon ci kaw la nekk ci suuf ba tey day delluwaat ci maslaxa ku mel noonu su fekkee ne ñaanal ko ci kaw mën naa mel ni lu koy yëkkati di ko dëgëral ko yóbbee wala bokk di ko di feeñal ci bëtu nit ci ne kii daa mel ni ci lu baax la nekkoon su boobaa mën naa doon loo xam ne nit ki dañ ko koy tere comme ni nga xamee ne la ñuy teree wala boog lañu lislaam di diggalee ka nga xam ne boog lislaam di sàmmanteeg autorité mën a jullee ku mel noonu doon di ñeneen dinañ ko jullee su fekkee da nga am position boo xam ne position bu nit ñi wet wet la am na say wax ni ñu koy topp ku mel noonu lay gën mooy nga ñaanal ko su fekkee da nga koy ñaanal nga ñaanal ko ci suuf waaye doo ko ñaanal ci li nga xam ku bëgg jullit boo xam ne loo xamee sa ak njub doonte ne ko autorité te amul benn maslaxa gu nekk ci ñaan ko ci kaw te bu ñu ko ñaan ci suuf loo chaque ne la gën ci kooku mooy bañ a fésal comme ni nga xam ne ñaan dañ koy defee ko am ne ci caaxaan la nekkoon ab théâtre kat la dundam gépp théâtre la ko defee yenn say théâtre mi sax mën na caa def loo xam ne euh, mën naa doon kufru ci fowee diine yàlla suñu borom wala mu nekk kat mu nekk euh, woy àddunam yëpp da ko concert ba mu jeex nekk ci mooy yàlla googu fésal ko waxaatu nga gis ay nit ñoo xam dañuy sunna la def seeni statut jooy la jooy ku la jooyloo sooy jooy sa kër yal ko yàlla yërëm ñaanal ko sa suuf sa kër ko bëgg a ñaanal jullit nga ñaanal ko mais lan mooy day bàyyi ko te kooku nekkoon yàlla lan mooy yàlla nekk mel ni benn ralliement benn soo benn benn woyefal gu ñuy woyefal mooy yàlla suñu borom ba ku may yàlla mel noonu su nga xam ne ñi nga xam ci ñoom njub taxaw di def seen i sati di jooy ak ñii di bind ku nekk di wax nekk ñu wax rawatina réew ni say nag suñu bokk arabi sax yi ko ñoo ak lool nga tey ñu indi ay comparaison da ngay da bëgg da ngay bëgg ci suuf la fekkee da nga ko bëgg a ñaanal ko ci lan moo tax nga bëgg koo fisal ci kaw te kii nekkoon ci mooy yàlla suñu borom loolu dafa am ak ku woyofal ak suufeel ak ñàkkal fayda mooy yàlla suñu borom naka nga mën a wëlbatikoo nga xam ne ñooy mooy yàlla ñooñu nga bëgg leen wan ne lii ñu garaaw moo lay wan ne te loolu yaa bokk na li tax yàlla daal di daal di mbugal wala boog mbugal ñenn ci yahuud mooy dañ daan tase nit ki def mooy yàlla nga tere ko ko mooy yàlla googu waaye mu konne ci mooy yàlla googu konne gu mu konne du indi benn changement ci seen comportement kooku noonu nit fekkee dafa mooy yàlla sunu borom dafa am benn taxawaay boo war a am mooy ci dundam ak ci faatoom gu wan nit ñi ne kii nii li mu nekk ni mooy yàlla nekkoon lu baax waaye su fekkee ne gi faatu na rek moom moo gën ci nit ñi donte ci mooy yàlla la nekkoon achèque ne loolu nekkul yoon boo xam ne yoon islam la kon kooku mooy première catégorie bi ci ñaareelu nit ki wala boog première forme bi nga xam ne nit ki mën na ci eh, nekk eh, faatu ci te nekkoon ci mooy yàlla mooy li nga xam ne kii am dafa nekkoon ci marsiya mu des nag ki nga xam ne moom te moo ñu tax a jug mooy ki nga xam ne dafa faatu ci li nga xam ne mooy bidaa mooy mooy yàlla moom ci bidaa lay dellu bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu kon moytalu ko fi mu toll wa iyaakum wa muhdathatil umuur maa leen ko mbir yi nga xam ne moom lañu sos ci diine yàlla ji ndax li ñu sos ci yàlla ji bokk na ci li xam ne moo gën a gaaw ngir daal di faagaagal li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di indi bokk na ci li gën a gaaw ngir xeex lislaam bokk na ci gën a gaaw ngir yóbbu nit ki ci gërmaande seytaan soril ko gërmaande yàlla sunu borom su fekkee ne nit ki ci loolu la nekkoon fésal ko dolli ca ɗi ca ɗi ca woote ɗi woote ci loolu gërëm beneen yoon bu teg yoon bi nga xam ne ca la saxaaba yi nekkoon pas-pasam jaamu yàllam soo ko jëlee niit ko ci alquran ak sunna ak dégg na sa daw saa nga gis ne dafay wuyoog wuteg ñoom wala sabal day juyoog ñoom ku mel noonu su faatoo ban taxawaay lañu war a am ci moom laa shakka ne kooku it ba tey su fekkee dañ koo dugal ci sunu waxtaan wi mooy dañoo gis ne kon la mu tàbbi woon ci bidaa génnewu ko ci lislaam ndax koo xam ne nekk ko ci lislaam moom buxdu ga day doon buxdu wal mutlaq lay doon ka nga xam ne nag moom ba tey am na mu def ci lislaam daa am lu cay des ci xubb ga fillah mooy la des ci moom ci ngëm yàlla am loo xam ne da cay nekk ci moom làmboog moom mu nekk ba tey mu warlu al buug bu fillah bañ ngeen koo bañ ci yàlla kooku su faatoo taxawaay ba amoon ca taxawaay bañu amoon ca moom ca jamono jamuy dund moom lañuy am ci jamono jamuy jamu faatoo dara du ca changé te kii nii taxawaay bi ñu am ci moom moo gën a tar wala gën a tar ka nga xam ne moom la mu feeñaloon ci marché julli lañ ca dëpp ndax lor kële moo gën a féeti suuf moo féeti suuf ci nit ñi mën koo jël comme modèle ci sunu taxawaay su fekkee ne jaarut yoon ndax ka nga xam ne mooy woykat wa ka nga xam ne mooy fecckat bi ka nga xam ne mooy kat bi ka nga ne mooy sàcckat bi sufaatoo ka nga xam ne mooy théâtrekat bi ka nga xam ne ka nga xam ne sufaatoo nit ñi ñoo gën a xam ne kii ne ci la mu faatu nekkut lu baax su nit ku baax ñëwee am benn taxawaay ca moom day wàññi rek worma wala bokk worma gi ñu war a am topp gi ñu waroon am ci topp yàlla ak mere ak diisaay gi mooy yàlla waroon nekk ci ñoom da koy wàññi rek waaye dañ xam ne ba tey lii mooy yàlla la kon lor gi mooy gën a tuuti wuteeg ki nga xam ne ci biir yàlla nekkoon ndax moom la mu nekkoon muy ak mooy yàlla da koo solal mbubbu diine daf ko askanale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon kooku am na taxawaay yoo xam ne bis boo ko amee ci dundam ak ci faatoom lu dangereux la pour jullit ñi foog ñu bàyyi xel mbir mu baax li ñuy wax nii mooy lislaam lépp da koo tekkeel masaalihil mafasid lislaam lépp lu muy teg day gam-gamle lu muy digle du ko tey day gam-gamle ñaari mbir yi suy tàkkale ñaari mbir day tàkkale mbir yoo xam ne dañoo am ak wute suy boole ñaari mbir day boole mbir yoo xam ne wute amu ca benn la la moo tax lislaam fii nii muy takkale kii wëkkale mooy ni kii nii moom la mu nekkoon da koo solal mbubb lislaam mooy ki nekk ci bidaa moom bidaa googu da koy askan ci diine kon kooku moo gën a yomb nit ñu woru ci moom que ka nga xam ne moom daa nekk kon ci ak mooy yàlla goo xam ne jullit nañ dëppoo ne lii mooy yàlla la kon kii taxawaay ba ñuy am ci moom moom lislaam di gën a taral ka taxawaay ka nga xam ne mooy yàllam dafa fis sololu ko mbubb li nga xam ne mooy mbubbu lislaam ku xam ne dafa nekk ci bidaa di co woote mu daal ciy teg baaraam mooy ko am dafa gëmoon ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba mu faatoo dellusiwaat na fi ginnaaw ba mu wootee ba yàlla subhanahu wa taala na ko sa diina ji mat na ko al akmaltu lakum diinakum wa alaykum ni'mati wa raditu lakum islaama diina daal koy tàgge من إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوجه فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا تقي ينندبي صلى الله عليه وسلم ينندبي فاتو دين جمت سك صحابي نكون تليون نكون وان نوتي يوكو نوتي كوكو دادي جمم نينندبي صلى الله عليه وسلم لسان حاله أمن لو خمنه daf ko fàtte woon a jottali wala am na loo xam ne da ko dencaloon kenn ba yonent bi sallallahu alayhi faatu ba ay junni at daal di jàll mu ñëw daal di koy jox kenn ko léegi lii moom yow laa ko jox yaa ko moom sab tariixa la yow laa ci jox ndigal kenn mënu ci dugg kenn mënu koo jaamu yàlla du dem ci ndigal moo xam da ci tudd yàlla moo xam da ci istixfaar ne yow la war a jaar nit ki daal di gëm loolu kooku dëppi na ci bidaa gu rëy mooy nit ka faatu moom la mu gëm mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu faatoo ñëw na daal di dekki wala boog mustafaatu lépp wedd alquran moom ji war a wedd na alquran mayitu innahum mayitun yonent ba faatu yàlla subhanahu wa taala yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ko yónni matal moom mu ñëw ne yenent bi ginnaaw goo am na ko mu jël bokk ko daal di koy jox ay mbir yoo xam ne mënuñu koo xam mënuñu koo tablu duñoo jaar ci ko ginnaaw junni kooku bi lisaani xaal dafa wax mu leer nañ ne moom la mu nekk moom nekkul loolu lañ saxaaba yi nekkoon su fekkoon yi nekkoon la kon luñ ñëw di ko jox moom su lu fu nekkoon la kenn du ko jox su fekkee ne am na luñ ca yokk it mooy kon nekkul la saxaaba yi nekkoon fekkee dañ ne lu nekkoon la waaye da am luñ ca luñ ko jox lu xaas kon lu xaas daal moom leer ne moom li nekkoon moom nekkul saxaaba la fekkee ne moom moo seede ci boppam ne moom ci bidaa nekk moo xam da koo tuddee nag xasana mun na ko nekk di ko leeral waaye ko dafa seede ci boppam ne ci bidaa la nekk moom ci bidaa yow nga ne bidaa bu rafet amu diina rawat ne bidaa goo am pas-pas la dellu mu dolli ci yeneen mbir yoo xam ne boo ci gën gën tee bon ba ca des ci ay pas-pas ci ay ngëneel yu mu jël yu féete kaw ngëneel yàlla joxoon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay gëm-gëm jëm ci waay jooju nga xam ne képp ku gëm loolu lu nga koy mooy tariqa tijaaniya damay exemple ma mubt kan may mubtade waaye yemut ci gëm tariqa boobu kase waaye di caa gëmaat leneen lu ca yokkaat ci tariqa googu loo xam ne ña nekk tariqa sa dañ koy xeex ñenn ca ñoom ca mbonte mooy fayu ñu woote ka mu gëmaat ca ñooñu ca tariqa boobu woote woo woote wu bon woote woo gis yàlla woote waxdatul wujud ay taalibeem tasaaroo di saaga yàlla di xas yàlla sunu borom teg ko ci ne ñoo maarifatullah xam dañoo xam yàlla sunu borom di jàngale réere borom bi tuddee ko xam yàlla sunu borom kooku nekkoon ca di ca woote nekkoon ca di co woote ñu boole ko ci ñooñu mu leen di dëgëralal la ñu nekkoon ñoom damay jox exemple mubtade kan mooy mubtade kii fa mooy eh, exemple mubtade lay joxe mooy kooku ku mel noonu faatoo nañu war a am ci moom ci dundam ak ci faatoom yëmut ci nekk ci loolu nekk ci ab mubtade waaye sax yenn saa yi su dumee ci neen taarix sax laxas ca lu bon mooy dégg na rafida nga xam ne la mu lamboon mooy saaga na ci saxaabatu kiram nekk ci ba dee kooku mooy ki ñuy waxtaane mooy mubtade di ko woote nag kooku ci la nga xam ne moom mooy dundam ban taxawaay lañ waram ci moom ak salafu saalih mag ñu baax ñi ku mel noonu ban taxawaay waram ci moom mooy wone ko ak mere gu mat sëkk di taxdiir ci moom bal di taxdir képp kuy tagg jëmale ci moom moo xam ci dundam la moo xam ci faatoom la la tax ñuy taxdir ci moom ci dundam ndax kooku musiba la boo xam ne bis bu ko nit ñi daal di mayam maye xel joxe nopp mu sànk leen yóbbu leen ca la mu nekkoon di bañ a tagg ci moom di ko tagg ndax tagg googu ñu koy tagg dafay mën naa dindi bughd ga ñu waroon a am jëmale ci moom ci mooy yàlla gi mu may yàlla sunu borom ci taxaw gi mu taxaw défier sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw gi mu taw di woote ci lu wuteeg sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci dundam noonu la sax salaf doon ama koog nañ indi ci neem ne mooy waxi salafu saale ci al mubtada su faatoo naa loolu dafay effacé wu ndax léegi kooku dafay nekk ci ab tariqa bu bon nga jàmm ne tariqa bi daa bon tariqa bi pas-pasamam jaamu yàlla mam jëfam tariqa gënu ko bon tariqa la boo xam ne ñi ko dëgëral ñi ko ñi ko fondé nekkul lu dul al istimar ngir daal di mabbal islam nga xam loolu taxaw di ko xeex nit ko nekk ci ab bopp di ko tasaare bàyyi fi audio am bàyyi fi vidéo am mu daal di faatu mu mel ni ki gën ci jullit ci moom moo faatu ndax taxawaay boobu nit ko war am wala mu faatu mel ni comme koo xam ne moog jullit am ñoo faatu ñaari mbir moom mu faatu nga def comme jullit ñi faatu loolu sa musiba la waaye rawat na mu faatu na nga def ko koo xam ne moom laa bokk ñi gën ci jullit ñi faatu à ñaanal ko tànk jullit la loolu datan la jaale ay mbokkam lu dagan la ndax ab jullit la waaye dax kooku dañ ko la xaramoon ci moom ci dundam ci tagg ko tagg la mu nekkoon walla wane ak mbaaxam ndax loolu dafay dagan tonti mooy déedéet loolu musiba la su faatoo ci li gën a doon musiba ndax foofu yaa ngi ñëw ci fi nga xam ne xolu nit ñi dafa xaw a lawet dafa fees ak nga ñëw di ko tagg foofu noonu yaa ngi koy yaa ngi jël yaa ngi suuxat ay mbir ci xolu nit ñi yaa ngi koy defal publicité ndax kooku dañoo war a ndax ñaanal ko ci kaw dafay doon loo xam ne dafay dagan dañuy xool maslaha bi ak masala ba lan mooy jubluwaayu ñaanal ko ci kaw googu ak lan la mën a indi ndax du wone ak suufeel ñàkkal fay la lam nekkoon ndax du wone sax ne moom lam nekkoon daa mel lu baax la woon ndax fekk na loolu lañ koy xool ak kan moo ko war a ñaanal ci kaw fekk dañ ko war a ñaanal ci kaw ndax koo xam ne nit ñi dañ koy déglu la loo xam ni dañ koo wekk koo xam ne nit ñi dañ koy dañ ko jàppee ne dafay woote ci alquran ak sunna la chaque ne kooku balaa moo ñaanal ko mel nii ci kaw da war a xool ñaanal googu noonu lan la mën a indi ci ak yàqute ndax lii di bidaa ci dund mag ci deewam mooy ko koy desaare la nga xam ne mooy taxawaayu mooy suufeel ko soofal ko wane ko ak li nga xam ne mooy ko mere ba nit ñi xam mënu ko bidaa daal di koy sori bépp taxawaay boo xam ne dafay wàññi li nga xam ne mooy wone ñaawteefu bidaa ak ka koy tasaare bidaa suñu waxee bidaa rek mooy ka koy tasaare mbonteeg bidaa ci ki koy ñu koy tasaare la bidaa du dugg kenn mus ta tëdd sa kër bidaa ñëw fëgg la ne salaamaaleykum man maa bidaa damaa bëgg ñëw sa kër bidaa ay nit ak seeni nopp ñoo koy tasaare damay xeex bidaa waaye du ma xeex ñay tasaare bidaa loolu tappale gënu ko rëy damay bañ bidaa waaye duma bañ ñay tax ñay tasaare bi da loolu tàppale gënu ko rëy bidaa dama ko dama koy joggati waaye damay week ña koy tasaare loolu ku koy wax àndoog sam xel ku koy jëfeg àndoom sam xel bidaa tasaare ko lu ko dul ay nit ak seeni nopp ñooy tasaare bidaa kon nit ki mënoo xeex bidaa lu dangaa xeex ñay tasaare bidaa munoo jéppi bidaa lu da ngaa jéppi ñooñu bidaa munoo bañ bidaa lu da ngaa bañ ñooñu bidaa léegi nag nit ki mooy choisir mu seet ngërmaande la suñu borom wala mu seet ngërmaande li nga xam ne mooy nit ñi kon ku mel noonu su faatoo damaa jox exemple rek ci euh, tariqa tijaan nu la ko jël tariqa muriidiyya tariq laayeen moom bu encore une fois saa yu ko waxee naa ko préciser bokkuñu ci l'islam beneen diine la lañ nekk mun naa koo wax ci ki nga xam ne moom mooy askan boppam ci tariqul qaadiriya wala li la nekk leneen exemple laa ci joxe. ku mel ni su faatoo nekk ci lii fésal ko di ca woote su fekkee ne nekk koo xam ne caa nekkoo nekk ci baam yi woote wu ca la chaque ne kooku nekk lor ba nekk ca eh, lor nekkul ci moom ñaanal ko ci kaw ndaxte nekkul ko nit ñi dem di seeti. Euh, nekkul ku nit ñoo xam ne dañuy dem di ko di di xooli waxam di ko dégloo nekkut koo xam dafay woon liñ ci lam nekkoon kooku ab jullit la boo xam ne dañ koo ndax mu faatu ko yàlla sunu borom su fekkee sa mbokk la sa jegenaay la ay say mbokk ak say nit daal koy ñaanal yàlla sunu borom waaye ki ñuy wax ni mooy kii nga xam ne moom daa nekk ci mooy yàlla sunu borom di tasaare mooy yàlla googu mooy yàlla go mu nekk mu solal ko mbubbu diine doo dugg ci bunt boo xam ne buntu diine la lu ludut nag ne tasaare na ko. ci tasaana ci ak mooy yàlla sunu borom tasaana ci ak mënte mu gën a tee dangereux su fekkee ne sax daa xawoon a jege sunna dañuy woowee jege na te ñuy wax ñoo jege sunna ñoo gën a sori sunna foofu la gën a tee nag kooku moom moom moo gën a tee dangereux ka nga xam ne dañ ne ñëpp sot na sunna ka nga xam ne moo nekk ci bidaa pare na yenn saa sama wax mbir yoo xam ne waa day jege dëgg day jege sunna kooku gën a tee dangereux fuuf ka nga xam ne moom mooy wax li nga xam ne moom mooy moo bidaa kase bu naxul benn daraay daraay daraay sunna kon kii nii kenn waru koo tagg ba muy dund ak ba muy faatu baldi ko tagg ak ba muy dund ak ba muy faatu la ayib la kii nii su faatoo lañu war a jullit bi war a yëg ci xolam mooy mbégte ndax ku doon tas mbonte faatu na loolu nga jàpp ne nekkoon du mbonte mënoo boole si xol ñaari mbir yi koo xam ne da doon tas bidaa mu faatu ya ngay xeex bidaa googu mu faatu deem googu nekk ak naqar ci lislaam ah, kayif ci ban anam kon kenn du ko dañ koy jullee julli dañ koy jullee waaye ña ko war a jullee waruñu doon ñoom dañ leen a na ñoo xam ne nag dañ leen a wekk ci wegin koo xam ne jullee gi koy jullee mën naa tax nit ñi daal jàpp ne kii la mu nekkoon lu wér la loolu mooy li jiitu kooku dañ koy sang dañ koy suul ci li nga xam ne mooy bàmmeelu jullit ñi kooku kenn des koy ñaanal waaye ñu koy ñaanal ci kaw foog ñu xool lañ koy lañ koy ñaanal ak naka lañ koy ñaanale ak ka koy ñaanal ku mu doon ak la nekk ca la nar a toftale ci ñaanal googu dëgëral ci dëgëral bidaam ak daal di koy jël nit ñi yóbbu ko ci yóbbu ko ci ci moom ñu topp ay waxam ginnaaw ba fi ba mu fi ba jóge lii fow ku topp li nga xam waxu boroom xam-xam yi ci salafu saalix dina gis ne lii lañu taxawaay bii lañ amoon ci waa bidaa ci seenu dund ak ci li nga xam ne mooy seenug seenu faatu nañ ci jukki lenn ci seeni wax mooy taxaw bi ñu amoon ci mubtade gin jamono yoo xam ne ñu dund taxawaay ba noonu am jamono yoo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa faatu taxawaay bi jiitu bi nit ki war a am ci koo xam ne dafa nekk ci bidaa rawat ne ko cay woote mooy mere ko cippi ko mu soof la ci bidaa googu muy woote te dafa war a feeñ saw làmmeñ feeñ ci say jëf moom dafay dund am dafay faa dafa nekk moom dafa faatu odoo dem ci téere yi nga xam ne ñoo dajale fondement wu ahlu sunnati wal jamaa téere yi nga xam ne borom xam mu sarew dañ koo bind di ca toxal ñi leen jiitu ci salafu saali seen i pas-pas seen i jëf luñ tek ahlu bida luñ ca fekk foo xam ne dañ fay indi bunt boo xam ne dañuy leeral taxawaay gi nit ko am jëmale ci am tele moo tax soo demee ci ibne ibana kii di ibnu bappa mi fax naan laa tushaawira ahada mi ahli bida fi diinek bul diisoo kenn ci waa bida ci sa diine wala turafiqhu fi safarik bu ànd ak ñoom ñukk di di di tukki wala am kanak mu ne soo mënee sax an laa taqrabu fi fi jawaarik soo mënee sax fexeel ba bul fexe ba dëkkandoog moom soo koy mën nga ci dara mu ne min as-sunna mujanabatu kulli man itaqada shay'an mimma dhakarna mu ne bokk na ci sunna mooy daal di dañ ba set wecc ci lépp loo xam ne tudd na ci mbir yi xam nañ ko tudd mooy yi mu tudd mooy ci ci bidaa mooy bokk ca daal leen di daal leen di hëjër hëjraanuhu wal maqtulahu boole ci lan mooy mere leen wal hëjraanu man waala daal di moytandiku sori ña nga xam ne ñoo leen di ñooy àndandoog ñoo wala di leen dimbali nasara di leen dimbali wa dabba anhum wala di leen di leen defaan wa saxaaba wala di ko di leen di àndandoog ànd ak ñoom wa in kaana alfaailu dalik yudhiru sunna donte kay def loolu moom la muy fisal mooy sunna mooy fii ni ñuy yëttal ci wax ji mooy wal maqtula mooy ne nit ki lañu war a am jëmale ci ka xam ne moo nekk ci bidaa moo xam day dund day faatu mooy mere léegi day faatu rek la ko meroon daal di jeex te tuubu ca te lam fu bàwoon lam fi nekkoon ci bidaa tasaaroo ma chek loolu musiba la ma ne kii di Fudayl ibn Iyaad day wax ci ba day baana mi ngi koy indi ñëw na tamit ci sharxu sunna bu albarbahari mu ne man xaba saaxiba bida axbata allahu amala wa axraja nuur al islaam min qalbihi mu ne képp koo xam ne dafa bëgg nit koo xam ne dafa nekk ci bida mu ne yàlla subhaana taala màbbali jëfam day génne li nga xam ne mooy dafay génne li nga xam ne moom leerug lislaam ci xolam Fadil ibn Iyaad boobu ba tey moom mooy wax ba tey ci sharh Sunan Abu Rahmaan indi na ko mu ne man addama saahiba bidaa a aana ala hadmi lislaam képp koo xam ne dafay ñëw di dimbali koo xam daa nekk ci bidaa kooku dafay dimbali nit ñi ngir ñu daal di mabbal lislaam kooku mi ngi dimbali ci mabbal lislaam la shakk ne képp ku fonk ku ponkalloo ku rëyloo ku wekk bu nitu bidaa bidaa nga wekk bidaa nga ponkaloo bidaa nga dimbali képp ku dimbali nitu bidaa bidaa nga dimbali waman tabassama fi wajhi wajhi mubtadin faqad istaxaffa bima anzala allahu ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne dafa siiñ rek ci kanamu mubtadi li mu jublu fii mooy képp comme dafay wone akuk lawet jëmale ca mubtadi kooku la nga soofantal yow la nga soofantal mooy la yàlla wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi sallam da saay boo yëkkatee mubtadi xamal ne wàcc nga soofantal nga sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mubtadi moom ko muy buuxanteel mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu yoon ba mu jël ba muy buuxanteel mooy yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc soo ko yëkkatee wàcc nga sunna yonent bi wa sallam ni ke nag moom mooy moom mooy moom mooy choisir moo xam dafay dund doo xam dafay dafa faatu saa yi boo jëlee mubtadi nga yëkkati ko tagg ko ka nga tagg mooy la nga tagg wala boog la nga soofantal la nga wàcce ci xolu nit ñi ci gëmën ci kanamu nit ñi mooy la mu nekkoon la mu nekkoon te mu wuuteeg sunna yenent bi wala boog euh, la nga wàcce xol nit ñi mooy la mu wuutee la mu wutee te mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii ci dundam ak li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy moom mooy faatoom kon li nga xam ne mooy cosaan ca mubtade mooy kenn du ko bëgg bëgg googu la mu wuuteeg mooy tagg ndax koy tagg mooy ka nga xam da koo da koo da koo bëgg kon su fekkee ni nit ki dafay tagg ab mubtadi la muy dindi la mu feeñal mooy ne kii dama koo bëgg la muy feeñal mooy kii dama koo wekk la muy feeñal mooy kii nii la mu nekkoon nekkut lu doy waar lu war a jar ñu daal di mere ñu mere ñu mere nit ko kii la Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ajuri na ko ci sharia dafa doon wax ne amut ñu nekk ci kaw suuf ñu ma gën a bañ ñu ma gën a mere gën leen a bañ ñu weesu ña nga xam ne ñoo tàbbi ci bidal qadariya ndax ñu ñoom xamuñu doyub yàlla sunu borom te xamuñu ne yàlla lu ko neex mu daal di mu daal def ana lii fekkoon na koo gis ñoo xam ne dañuy wax ne yàlla subhanahu wa taala lépp la wala yàlla dañ koy gis kaw suuf nan lay wax ci ñoom Abdullah ibn bees ba tey ci Chérif la Ajuri mi ngi koy indi waxu Ibn Awn rahimahullah Ibn Awn doon wax ne kii ni Ibnu Sirin doon wax ne amul ñu mu gën a bañ ci kaw su lu dul ña nga xam ne ñoom ñoo sos li nga xam ne mooy bidaatul qadr ana Ibnu Sirin su gisoon nga xam ne ñoo sos bidaatu tijaniya nga xam ne lépp lu bon ci yeneen bidaa yi jël nañ ko dajale ko ci ci pas-pas أنا ahin sirin fekkon ni gis na ñi nga xam ñoy woto fa yedd gi ak ñi ko gëmmo ne ko don والله المستعان ورمي سفيان الثوري لني كيري شعب رواتي موم لأن كان سفيان الثوري يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالسة أشد النحي mooy Sufyaan Sawri boo ko dafa doon dafa mere woon torop torop bañoon waa waa bida te doon tere ñu daal ko ñoom fii ni ñu jublu mooy bañ gi nga xam ne doo jël benn boroxaan boo xam salaf salih mag ju baax duru da ngay gis ne lii daa bokk ci lan leen di tagge mooy lan mooy la nga xamee ne noonu la ñu war a mere gan daan mere waa bida moom seeni dund moo xam seeni faatu نون لن يذكرين شافعي امام شافعي رحمه الله البهقي في مناقب الشافعي ده امام شافعي كان شديدا على اهل الإلهاد واهل البدع مداهرا ببغضهم وهجرهم دران فيسل جيب جملن جيب بان جملن بان اك موت جملن موت نكو دين فا دا مو توك نال نيو باخ لاني نيت كي بون baaxut nga xene ko di ko xeex même va doon nga moo fi gën loolu xam-xam la tabax nay daara nangam na lool da ba muy dund doon na ko def ndax faatu gi da da cee dara wallahu mustaan am Ahmed dafa doon wax naan ida sallama arrajul ala almubtari fa huwa yuhibbu ñu tabaqaatul xanaabila fekkee nit ki dafa ñëw dafa nuyu sa mubtare day waneen kooku daf koo bëgg la mu faatu nga toog di ko tagg di ko gërëm di ko def eh, ponkol bu lislaam mel lislaam dañoo dafa dafa ñàkk lu eh, mu wartoon a ñàkk ay fi mu nekk ci dundam gi mu nekk ko ci bida wallahu almustaan moo nag kii abdullah mubarak da doon ñaan yàlla sunu borom nag allahuma la tajal li saaxibi daati indi yadan fa yuhibbuhu qalbi mooy bul def bul maa ngi ñaan bul fexe yàlla defal ba bépp benn mubtadi du am loo xam ne njëkk ci man ba sama xol di ko di ko bëgg kon li nga xam ne mooy cosaan ci nga xam ne mooy waa bida mooy jëpp leen société bu mënti nekk nag am na société ba dañoo bari maslaha te maslaha gi soo ko doon seetlu lu bari na fekk lay doon dañoo bari sunu société bi loolu dafa war a feeñ léegi kenn waxu la par force euh, ci xikma ci maslaha nga ne waxuñu la foo toll ci daaw na d'accord tawa naa dama bañ waa bi daal dama génne di ko fësal mais kenn wóolu nga def contraire bi fekkee maslaha moom mooy daal ne ah mais ah, ñii de ay awaam lañ wala boog ay nii lañ yoo xam ne xamuñu wala awaami soo ñëwee neen seen sëriñ wala seen wasaaj boo ne daa nekkoon islam nga wane da koo mere euh, mën nañ koo déggee neneen ba sa daawa duñ ko déggloo duñ ko jël loolu même fii euh, in kaana fii nadar taxib léegi lan moo la lan moo la poussé loo léegi nag euh, d'accord fekke loolu yow loolu nga gëm xam nga ne lii nii moom nga war a doxale mais dafa am lu tax mënoo ko doxale mais lan moo la forcé lan moo la forcé su ñoom faatoo nga def ab ab plateau spécial di di di plateau spécial di tudd lu baaxam loolu moom daxaw moom sant la ko maslaxa daaw itam sant la ko toogal si noppi fekkee mënoo ñàkk ñaanal dafa sa tweet nga ñaanal defal benn doo nga ne yàlla ko yàlla yërëm nga yem fa soo mun doon ñàkk lool wax loolu sax ah nga ne waaw waaye pinut une nga toog di tagg ab mubtade pare wóolu di woote wa na su xëyee suba da ngay da ngay dajjaat bidaa laa bi diin nooy mën a nekkee di daj mubtade benn tariqa di ko dajji baaxut woo nit ñi di leen sonal fuñ tol suba ngoon kon seen ponkal sufaatoo nga toog plus de une heure di wax ci moom lu baax loolu lan lan lan ngay daaj yi xam nga te laa ubbi diin diine kenn ko fooyee diine kenn moomu ko su fekkee da nga am loo bëgg a maye wala am loo da ngay maye si la nga xam ne say eh, yaa ko moom waaye diine ji doo ko doo ko fooyee demal jaale ji demal ji say mbokkam defal ne la njekk da ngaa bëgg demal jaale ji fekk noonu nga gisee jëleen million jox leen. su fekkee dañuy dëj ne maa yor lépp su fekkee ne loolu garaawut ci yéen nga def ko mais nag sol mbubu sunna taxaw ponkalu mubtade faatu nga toog ku nekk di wax la fekk loolu ku ca noppi noppi nga ci musiba su fekkee noonu mooy doxalin bi jarutul kenn du toog di dajji bidaa lay dajji ci bidaa lay dajji bidaa njëkk day ci ci dundam gépp te woo ci bidaa su faatu boo bokk na ci gën ci ñi lu baax rek moo nekk ci moom looy dajeeti bay nit ñi nekk ci tiijaan nekk seen murit ndax mën nañu doon ñu baax lan lañ lan lañuy woo nit ñi en fait ci lan lañ sonalee nit ñi di indi loo xam ne day tàkkale jullit ñi <laughs> naa leen li baaxut li baaxut li baaxut dëkk leen ci nangam fekk na ñoom lañ nekk yow da ngay wax ne presque baax na mën nañ caa nekk ba dee ci di ci woote ba dee ci du tee ñooy gën ci nit ñi ok xalaas loo ci luñ lan ci lan lañ ci lan la ñu sonee nit ñi di leen woo ci leneen su fekkee ne la ñu nekk nekk ca du ca woote ñu faatu du ko ba faatu ca du tee ñu nekk ñu baax ñu gën ci nit ñi du tee ñoo xam ne lañ bëggoon mooy sunna su fekkee ne loolu la kon ñun lan la ñuy woowee lan la ñuy sonalee Sénégalais yi di leen woo naan leen lii ngeen nekk baaxul na leen wax rek ne leen choisir leen ci seen tarixa googu noonu fexe leen ba nekk ca nekkin boo xam nekkin bu baax la. nga nekk ay nit ñoo xam ne dañuy doon ay wootekatu tarixa yi su fekkee ne nag dañoo wane tarixa yi baaxut kon ku ca nekkoon ka gën mooy ka ca gën a bon gën a baax ci tarixa yi mooy gën a bon ka ca gën a wàññeeku gën caa nekk ku suufee mooy ka ca gën a baax mais su fekkee ni gën ca tarixa yooyu ñu ca gën ñooy ñu gën a baax kon tarixa yooyu kay yu baax la nañ buñ buñ buñ buñ buñ fooye diine yàlla ci yéen yàlla jooy foo suñu toppalee duñ ko jaar de mi ngi baaji mi ngi gudd euh, سبورم خمخم يب كوتي نوم كوتي ملني عبد الرحمن الثابوني امام الصابوني مامي nettali li nga xam ne mooy madhabu salaf fii ñoom ñi jaar la jaar thuuri fudal ibn iyad abdullah ibn barik من واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخذائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi dëppoo salafu saalix mooy noot waa bidaa suufeel leen soofantal leen jéppi leen sori leen lu ànd ak ñoom duñ jege ak ñoom ki dara lii mooy li ah li waa sunna nekkoon wa yubgiduuna ahla albidaa alladina ahdathu fi diin ma laysa minhu wala yuhibbunahum moom ba tey yoom sabu nee ñoom ahlu sunna dañuy jéppi dañuy jéppi dañuy mere tout soo nekkee wax dañuy bañ ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoo sos ci diine yàlla ji li nga xam ne bokku ci du leen bëgg duñu ànd ak ñoom du leen déglu duñ jaxasoog ñoom bal dañ doon fexe ba musal seeni nopp ñu leen di ñu leen di déglu looloo tax nag ñoom ba nga xamee ne la moo tax ba nga xamee ne ورد سلف صالح أنا من جهة بين وقو شيخ سم الشهر بن ثيمين رحمه الله نريك من جابر لي أي وقو سلف صالح من يوم ديجو نكو خلي دي نورك دي التكسين عندرونك شيخ سم الشيخ أكيد الشيخ صالح وثمدي والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم الابتعاد والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم mooy li nga xam ne moom lañ jublu ca jiraan al bida mooy hëjër la chek am na jamono am na ay dawaabit am na am na am na waaye loo xam ne mooy mooy cosaan ni loolu amul benn dawaabit boo xam ne kenn mënu cee forcer mooy sab xol mooy bañ leen bëgg loolu boo mënti kenn nga fa ñoom ñëpp ñu mubtadi yëpp nekk fa doo leen bëgg te doo feeñal ñoom ak bëgg yenn saa yi nit ki daal def mudaara man mudaara bokkul ak li nga xam ne mooy mudaahana mudaahana da ngay jël sa mbiru àdduna da leen di jox sa yëfi àdduna ngir daal di sauver diine waaye jaay di jël diine joxe ngir sauver si àdduna loolu mooy musiba c'est principe dooy wàcc dara ci principe waaye nag ñoo yor autorité bi ñoo yor doole ji da nga leen a xaw a nga jël sa xaalis jox leen tayib nga jël sa oto jox ko ngir sa daawa mën a jàll ngir sa diine nga mën koo sàmm waaye nag jël sa diine jox leen say principe nga wàcc ko di leen tagg di leen gërëm naam ngir daal di sauver si àdduna loolu mooy euh, loolu mooy musiba kon lii mooy cosaan ci li nga xam ne mooy ahlu sunnati wal jamaa mooy jéppi waa bidaa jéppi googu dafay làmboog jëflante nañuy jëflante ak ñoom moo xam dañoo dund moo xam dañoo dañoo faatu te loolu taxoon nag waa sunna salafu saalih su waa bida faatu woon ñu kontaan ci faatu googu ndax la faatu mooy tasaarug bida saa yi bu ab mubtade bu am de tasaare bida faatoo tëj na benn buntu buy tasaare monte di xeex sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faatu na tëju na kooku daf ñoo noppal dafa noppal waa sunna ak faatoom du karifa السنة imaam Shaatibi rahimahullah ci al-I'tisaam dafay wone li nga xam ne mooy week am mubtadi moom day dund woo wala faatu na ni nga xam ne noonu lay dajjee nan lay mabbalee lislaam ci ban anam la mu ne fa inna tawqiira la bidaa madanna li mafsadatayni yata'uuna al-islaam bil hadim mooy kon ñaari mbir yi bokk li xam ne mooy week leen ab bunt la buy ibbeeku ab soupçon la wala ba ab probabilité wala yóbbu ci mabba l'islam ci ñaari anam yi anam gi jiitu mooy iltifaatul juhaal wala amma ila dalika tawqir respect boobu ko jox day jël ñu jël yóbbu da leen di yóbbu ci ñu wëlbati jëm ci kooku xëy ataqiduna fi l mubtadi annahu afdalu nnaas day jàpp ne kii moo gën ci nit ñi wala boog daa bokk ñu gën ci nit ñi wa anna wa anna ma huwa alayhi xayru mimma alayhi xayru te la mu nekk moo gën ñeneen lañ nekk xoolal kii fi ñu wax rek mooy rek nga tawqiir leen nga warmaal leen wala nga toog nag pendant une di tagg rek musiba mu ne dañuy yóbbu ci dafa yoddi dalik fa yuaddi ila ittibaai ittibaai ala bidaati yóbbu ñu topp leen ñu topp ko ci bidaa comme nekk duuna ittiba ahli sunna ala sunnatihim su baax dañuy topp bidaa bàyyi sunna bañ topp sunna mu nga ca yokk kon nga dëgëral leen fekkee ne sa waa ji ndaw sa wala waaj ji wala ndaw sa dafa doon koy seetaan dafa doon koo xam ne la mu jàppoon mooy loolu kooku da nga koy dëgëral day bëgg a faatoo comme kii ni mu faatoo ci loolu kooku loolu koo koy doon modèle am xam kii daa faatu kay ci bidaa lam faatu moom lu baax la ku nekkoon ci loolu da gën a ku nekkoon ci fayadu gi nekkum ñeseen ñeseen bi faatu nga gis nga ab sundit ñëw di ko tagg xanaa une heure nga koy tagg di wax lu baaxam ñeseen bi lu muy def loolu gën a dëgër ci ñeseenam googu mu nekkoon mu ne bokkut ak saaniya mu ne wa saaniya annahu ida wuqira min ajli bidaatihi saara dalika alxaadi almuxarid lahu ala insha al ibtida fi kulli shay mu ne su fekkee dañ ko weg te dañ weg ko mooy jëmmi bidaam gi te li ñu weg ñii li nga xam ne mooy bidaa gaa yi fi faatu fii ñu wax ñëpp ñuy wax fii am ñeseel la wala murit la wala la li tax mu ñu nit ñi weg ko mooy bidaa ko mu nekkoon nekkuloon bidaa googu mën a tasaar kenn du xam am na ñu bari ñoom su nekkoon ci sunna ci ginnaaw la ñu nekk kenn du leen topp kon je crois suñ ko wekkee raw tax léegi loolu lay nekk lan lay doon loolu da ngay xiir nit ñi ñu tasaare ñu ñu fente ay bidaa wala ala xaal lu munti doon dangay ngay dundal bidaa daal di rey sunna te loolu moom mooy mabbal lislaam ci boppam mi ngi gudd ñu ngi jigal ci guddaay bi ala xaal ñu ngi gis jëla waxtu bi ngi ko subhaanallah ala kulli xaal ahlu sunna su nit ku nii faatu woon dañ cay nëkk ñoo xam ne dañ cay kontaan li tax ñuy kontaan mooy ne kooku nit ñi ñoo noppalu ci moom àdduna bee noppalu ci moom da kooku daa ñëw di xeex li tax àdduna bi taxu may sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw di xeex li tax àdduna taxu mooy lislaam gi set wecc ko doon yàq kooku ab yàqkat la woon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis ba Qataada Ansaari moo ko solo ci Sahih Buxaari Muslim ne mos nañoo rombale benn néew ci wetam wala boog mos na koo romb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mustarih mustarahun min mooy ku noppal wala ku noppal ci moom saa mel ne ko ku noppalu ci moom mooy kan mu ne fekkee ne jullit bi nit ki ab jullit la woon bu gëm yàlla su borom su faatoo mooy ku nekkoon ci baax nekk ci sunna su faatoo kooku dafay noppalu ci coonaay àdduna su fekkee nag faajir lu ab kàccoor la kooku eh, garab yeeg eh, mala yi dañuy noppalu ci moom échec waaw lu ñuy wax nag lu féete kaw koo xam ne dafay ñëw di woote ci bidaa di xeex sunna kooku garab yeeg gàncax yeeg mala yeeg waa sunna ñooy noppalu ci moom te loolu la salaf saalih xamoon moo tax suñ lan xabaare woon koo xam ne daa bokk ci bidaa ko faatu dañ ca doon kontaan moo tax imaam ahmad xala ënna ca sunna dañ ko laaj ne ko rajulu yafrax bima yandil bi ashaabi abi ibnu ab mubtadi la woon jahmi moo indi bokk na juguñ indi fitnatu xalqul quran imaam ahmad daal tontu bu leen fàtte ne imaam Ahmed daawu tekfir eh, ñi nga xam ne ñooy nguur yi nga xam ne ñoo nekkoon ci dañ leen a eh, forcé woon wala boog dañ leen a ndaxoon ba ñu jël yoon wii nii dafa nañ teg ay jul leen jàppe woon bañ ko laajee imaam Ahmed ci loolu dafa tontu mu ne man laa yafrax bi hada kan moo dul kontaan ci loolu xanaa lu dul koo xam ne da ngaa leer li nga xam ne mooy mooy sunna loolu tax boroom xam-xam yu bari ci ñoom wala bokk ñu bari ci salafu saale su nan xibaare woon ne ci ñu faatu ci ay mobtade yu ñu xam dañ daan wane ak li nga xam ne mooy ak mbégte bale sax dañ eh, dañ daan dañ daan sujjóot wala jëmee ci taarixu Bagdaad dañuy wax ne bañu xabaare ki nga xam ne mooy almirisi mu nekk mubtadi bu nit ñu xam bu siiw ca kuréelam yàq lu bari ci lislaam ñu ne kii di Bishr ibn Xaaris bu nekkoon ci marché bi mu ne lawla annahu kaana mawdiu shuhra la kaana mawdiu shukrin wa sujud walhamdulillahi alladi amaata bu fekkoon ne jëm fii nii nekkut uh, place gom ne place mooy marché fekki ne kon dina nekk place boo xam su sujud la li nga xam ne moom mooy wan li nga mooy sant yàlla sunu borom mu ne ñoo ngi sant yàlla bi nga xam ne moom moo ko rey lii nag waxuñu ne nit ki saay bu mu tari faatu ngay yódu ko fisal su sat loo waxu Bishr ibn Haaris kii sax dafa def ko ñu marché ba loolu mën na cee dugg mooy waxuñu ne danga koy fisal mais li muy wane ne mooy ne lii mooy position bi nit ko war a am ci ab mubtal bu yàq diine daal di faatu la cay mere da ci wane ko ak naqar da ci wane ko ak jooy da ci wane nag ak ay ñaan yu gudd mel ni imaam ci amati sunna moom moo moom moo moom moo moom moo faatu lii moo nekkoon li nga xam moo nekkoon mawqif salaf saalix ci ay athar yu jeex yu bari yoo xam ne say mu lan xibaari woon ab mubtada lii lañ moo nekkoon si position fi ñu ko jëlee mooy sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kii dañuy noppalu ci moom wala nit ñi daal di mu noppal wa nit daal di ci noppalu ci am mubtada su faatoo nit ñi dañoo noppalu ci nit ñi dañoo noppalu ci noppalu ci moom ndax li tax nga jéppi ko du jëmmi tooñ gum la tooñ du saaga gum la saaga du xas gum la xas waaye xeex gum leen xeex sunna yenent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam la su fekkee mubtadi woon dalaa def mu defal njëkk eh, nga xam ne dafa dellu ci yow dala jàngal wala comme ñu bari yi nga xam ne Sénégal am na nga tudd jàngal njëkk nga ko war a dellu nga delloo ko ko ca na ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jàngale waaye nag bu ci lor li nga xam ne moom mooy jullit ñi ci feeñal li nga xam ne mooy tagg ko ci feeñal ak ak gërëm ko ci feeñal ak naqar koo xam ne da koy feeñal ci ak euh, bawookum ci bawoo te mu nekkoon koo xam ne da yàq ci kaw suuf yàq gën te weesu woot nekk ci bidaa di ca woote di xeex sunna ak di xeex waa euh, sunna donte nag ka doon def loolu sa bàyyi la donte defal na la njëkk ku baree baree bare bare xam ne diine yàlla ji kenn moomu ko ba mën caa jël leen di co jox kenn taxawaay ba nga war a am mooy taxawaay bi la yàlla subhaanahu wa taala digal nga am ko te loolu mooy jébbalu gi mat sëkk ci yàlla suñu borom jël awaatif jël sentiment ki fële yal nañu yàlla subhaanahu wa taala saxal ci sunna rey ci sunna may ñu gudd fan eh, dëgëral képp kuy woote ci sunna may la gudd fan koo xam ne lépp danga koy passé ci woote ci woote ci sunna yal nañu yàlla subhaanahu wa taala gindil képp kuy woote ci ci bidaa yal na ko yàlla subhaanahu wa taala eh, gindi te yàlla daal ñuy noppal ci nga xam ne xam na ci ñoom akuk fértelu akuk bañ a bañ a gindiku asalaamaaleykum wa rahmatullahi